Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou ah. Mame Diop topp nañ Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop awoon maam Diop awoon maam Diop awoon maam Diop awoon maam Diop awoon maam Diop awoon maam Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop leen commencé leen joxe na ndigal Farba Ngom joxe na ndigal nee na leen Farba joxe na ndigal gaayam yi li ngeen di seen ne ca kaw ndigalu Farba la yéen koy dégg prési euh, prési mel na ne Amadou Mame mooy jël raw gàddu gi ñi ngi continuer li nga xam ne rek euh, euh, moom mooy wàññi gi ñi ngi continuer wàññi gi ba ngoom daal moo jékki-jékki rek xool nga ca kaw ñu ngeen di seen ne na leen na jóg compte bi jeex na ñu déglu xool euh, nombre bi ñaata la 83 voix pour Amadou Mame Diop le maire de Richard Toll également directeur de la SAPCO euh, moom moo am 83 voix euh, Benno Bokk Yaakaar yéen a ngi gaa yaa ngi jibile gaa yaa ngi jibile mi ngi mel ni stade nag li moom nawetaan daal lañ ko daan gis waaye tey dañu koo gis fii ci assemblée nationale mu ngi mel ni ASC gi bu seen joueurs yi dugalee bu nii lañu koy defee Euh, fii ñoo ko moom muy kàddu euh, ñi nga xam ne euh, colonel joxe na instruction pour ñu yëg ci kaw ñi nga xam ne ñi ngi ca kaw daal di arrêté nee na ñu nekk ci kaw di yuuxu nañu arrêté Amadou Mame Diop a gagné avec 82 voix waaye di fàttali nag ñi nga xam ne ñoom ñooy yeewi askan wi ak wàllu ñoom dañoo boycotté wat bi watewuñu benn abstention moo am maanaam kenn koo xam ne dugalul xob ci enveloppe ba ñett gis ñëpp euh, seenu këyit këyitu Amadou Mame Diop la jël euh, daal di ko ciy dugal. mi ngi noonu Amadou Mame Diop ngeen di seen. Amadou Mame Diop moom ngeen gis noonu mu sol la veste bu gris bi c'est le euh, nouveau président de l'Assemblée nationale du Sénégal euh, ci euh, ñu déglu ñu déglu lu ma neex ma moom moo euh, gagné euh, ginnaaw bi nga xamee ne rek. Euh, article 10 règlement intérieur bi. Euh, kon nag Amadou Mame Diop moo ñëw toog fa nga xam ne Aïda Sow Diawara dafa la toogoon ndax euh, daal dinañu voté ba pare euh, moom lañu tabb ma ngay jóg. ma ngay félicité Amadou maam Diop ci ndam li nga xam ne daal dina koy am tey jii ci yi. Amadou Mame Diop mooy ñëw toog euh, ca fi nga xam ne Aïda Sow Diawara fa la toogoon ndax bu ñu falee ba mu am président rek rek euh, euh, day jaar di Diop fu mu ne nag yeneen vote yëpp moom moo koy teewee moom Amadou Mame mi nga xam ne bokk na ci parti Benno Bokk Yaakaar parti APR waaye it nekk maire bu Richard Toll également ni ma leen ko waxee woon sànq nekk directeur bu SAPCO moom nag. dafa nekk ab docteur waaye nekk tam ab pharmacien am na pharmacie bu mag bu nekk foofule ca Richard Toll Mamadou Lamine Diallo tekkee ngi noonu.